pomme de terre. à peu près ñi nekk man ak ñi nekk sama sama ñi ñi ma wër à peu près 40 hectares. 40 hectares bu dee 35 hectares ngay euh, ngay récolter. Euh, comment ça s'appelle encore euh, par par hectare. ça te fait à peu près 1400 tonnes tonnes loolu ngay loolu ngay récolter léegi boo xoolee récolter 1400 tonnes yi. amuñu benn traçabilité. mais amul kenn ngeen ba amul balaa muy rëccaat docteur Macoumba Diouf ñu laaj ko ñaar yu am solo yuñ fi évoqué ñu bëggoon ci leeral euh, ñu ngi lay nuyu. allo. waaw docteur Macoumba Diouf ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di voilà yow yaay euh, kilifa ci wàllu nguur gi en tout cas ci li ñuy waxtaanee nii mbéyu mbéyum euh, horticulture bi ñu bëggoon xam statistique yu fiable est-ce que am na. ci wàllu woowu ak aussi oto yi nu ñuy jógee Maroc dugg fii. allo docteur Macoumba. waaw maa ngi tontu maa ngi suivre maa ngi yow lañuy déglu dafa mel ni ñaari laaj yooyu ñoo am solo euh, gëjoo fi euh, keroog rek Pape Djibril ni ñuy wax laaj nañ la ko mais tontu wi dafa mel ni doyuñu euh, waaye yëpp ni may wax statistiques yi ñu bëggoon a xam ndax li sëñ Issa expliqué dafa mel ni amuñu ay statistiques fiables ay gap de cinquante mille tonnes yoo xam ne day ëpp xamuñu fu mu jaar est-ce que ay statistiques yu fiable lañ ko lal. waaw ma jërëjëf maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di remercier ñi participer ci plateau bi. Hmm. di wax ni euh, dinañu tontu ci ñaari question yëpp. Hmm. waaye il faut que am ñu leeral benn mbir. ay ca bismillah. mooy. kiy wax ci turu béykat yi. Hmm. soo subree débat bi daf naa doo xàmmee. ni béykat mooy wax. li ko waral mooy mu ngi ci werante école loolu moo lay woon ne en réalité amu leen impression jaaroo ak baykat effectivement c'est pas le cas li ko waral mooy li may wax nii nag dama bëgg mu am suivi xam nga tey émission bi tey. dama bëgg semaine ak weer yi di ñëw mu am topp ci lii ma bëgg a wax. benn mooy. mu wax leen fu muy béy wax yan kuréel la jiite ci wàllu mbéy mm-hmm. ak yan filière lay yëngu loolu nag interpellation la suivre ko parce que aussi dafay yomb rek nga ñëw ci plateau yi wax dem muy benn loolu ci kanam la mm-hmm. ñaar lu jëm ci affaire qualité loolu ci interpellation la ci kanam tuuti mm-hmm. à partir du vingt cinq janvier soble dootul dugg ci Sénégal bu ñu demee ba ay vers le dix jëm le quinze février wala boog non quinze mars dama bëgg ngeen di faat émission bi fekk dam ngeen ci terrain bi ñu xool soble bi ñu waxaat ci loolu lu may ñaan la. Mm-hmm. ma ñëw ci situation filière yi de manière générale avant a jël suuf parce que moom suuf moo ko fi indi. Mm-hmm. mooy ay at ci ginnaaw mosu leen a def plateau bu mel nii. Mm-hmm. horticulture kenn xamul woon mooy lan. ñu marante que ne ci diggante 2012 ak léegi la ñu jox secteur boobu solo loolu moom eh, journaliste ci seen bopp ñoom lay waxal. parce que damay toog ñu poser question lan mooy lan mooy horticulture maa ngi koy recevoir assez souvent temps yi. lan mooy xamuñu woon lan mooy horticulture mooy fruits légumes fleurs et plantes ornementales. dëgg la docteur xam nañ loolu yëpp. mooy nguur gi daf koy am gis-gis président de la république gis-gis bu leer que ne fruits et légumes. mooy ñoŋal dund mooy jox qualité nutritionnelle dund pour mu wér fruits moom mooy joxe xaalis liggéey wàllu xëy ndax hectare bu nekk juróom benn nit mu leen cee yëngu te gis ci seen bopp fruits et moom lañuy ñuy exporté bitim réew ci Sénégal ndax dañ ci am ay ndax climat bi ak distance bi par rapport au marché Europe yi. muy dugal xaalis ci équilibre balance commerciale bu réew mi. fruits et légumes moo ëpp li ñu jox béykatu Sénégal li mu ciy amee loolu waral ñu def ci appui buñ ci mënta def yegg ci niveau buñ ci mënta yegg ci. li ma faral di wax mooy lañu dem ci siècle yi ñu koy ëggum chiffre naaj ñëwaat léegi parce que tëj boobu loolu woy la te ki jàkkaarloo ak yéen ci bu ñu wax loolu ci yenn culture ci la bokk fii ci Niayes. ndax ñu ciy fekk filière suuf di ko indi fii Ngagne Diop la Matar Ndoye démb nañu jóge suñu bureau démb nañu jóge ARM. kii hmm. di wax xamuñu ko ci biir nañu ko topp suba moo leen seen ay toolam. wala groupement yi mu gis. non docteur docteur docteur docteur non non s'il vous plaît. docteur non docteur waaw léegi docteur wuy ma. non non non ci nga bokk mais mënoo tëb tëb tamit wax lu la neexee. non tu prends la parole. je pense que laaj na la yooyu ngay xool. ba ngeen mel ni tuuti rek ba ngeen mel ni. non non dañuy ñëw nekk fii émission la docteur. ñun nekkuñ ci plateau waaw bu ñu ko wàññi nii. ma ne may leen ñu tuuti. ko wàññi. ma ne comme nekkuñ ci plateau bi nag il faut ngeen may ñu aussi ñu mën a leeral. Hmm. mais da nga déglu li wax ak yow. non Birima Birima oui d' accord Birima on ne peut pas l' appeler ba pare bañ ko dé déglu. c' est ce que je suis en train de dire. am na la problème. parce que je dis qu'il faut qu'on l'écoute sama xarit la. question. soo amee question boo ko posé mën nga ko ko posé. mais mais non surtout des questions des questions. carotte bi pomme de terre bi dañuy jëlee importation yi moom moo ko wax. ma ne moom moo wax moom moo njëkk a wax satisfaction yi am ci suñu secteur horticole moom la ubbee en de production en terme d'approvisionnement du marché moom moo ko njëkk a wax ci ñetti culture yooyu mais justement loolu lañ a def ci chou parce que war ngeen ko laaj li tax waxuñu ko ci xolu ni pour ñu mooy wala pataat wala wala. wala sa wala tukub la. wala ñu def wala ñeneen ñu toog tukul ñëwaat. c'est essentiel parce que souvent ñetti mbéy mbéykat yi mbéy yu mag lañ ci amoon muy soble comme ni ak carotte su ma léegi la ci bokk kon balaa koy mën a def gel day dañ am ci niveau de production boo nga xam ne boo arrêté bato bi maanaam importé ci ñu nga mën a approvisionner marché Sénégal yi moo tax ñu dafa gum ko ci soble. def ko ci pomme de terre def nga baal ma docteur s'il ndax mën nga ma wuyu précisément ci question bu mu la laaj. ci biir année bi. Euh, docteur Macoumba Diouf nga baal ma. parce que lépp comme nekk daf ciy ñëw. docteur nga baal ma bu ma déglu ci télé bi s'il te plaît ñu déglunte ci téléphone yi euh, te camion marocain yi muy wax ni ñuy def ba dugg fii loolu lañ bëgg xam. ci bi ak Mhm. kon bismillah est-ce que nga ma wuyu ci euh, laaj bi. camion yi nee na camion marocain yi ni ñuy def ba dugg fii. bu paree ci boobu ñu dem ci statistique yi nañ ko def. benn benn marocain yi def ba dugg fii. télé ñuy def ba dugg fii. ñu déglu ko. def ba dugg fii mooy dañuy jógee Maroc. ñëw fi indi fii ay légumes ci période yi nga xam ne dañuy permettre légumes ñëw ci réew mi comme ni yi di jóge bitim réew di indi soble ak yeneen ñu ngi jaar Rosso mais ñun suñu ministère yorul affaire douane yorul affaire contrôle aux frontières mm-hmm. kon du ñun ñoo leen ci mën a jox ay détails ñun waa agriculture. Mm-hmm. mais li ñu xam daal mooy contrôle am na ci ni ñuy contrôler bato bi di contrôler poxob loolu la ñuy contrôler ci. dugg camion yi ak yeneen muy gar bi ak feneen. non non non il y a dañuy contrôler frontière daal. est-ce que boobu ci la camion yi di duggee ci réew mi li ma la leeral rek mooy. du ñu fi dugg. te fekkul ne dañoo autorisé ñu indi ci ay lëjum bu ñu ko autorisé ñoom duñu ko fi mën indi. bon on suppose bien que mënuñu tëb tëb dugg fi noonu. bon bon prochaine question s'il te plaît. docteur docteur baal ma rek. docteur baal ma tamit dafa am lu am importance dañ fi joxe ay chiffres yoo xam ni est-ce que am ngeen yéen ay statistiques yu fiable yoo xam ni ci ngeen di sukkandiku pour liggéey. waaw ci laa ñëw. télé bi lay déglu. bon ñu bàyyi ko mu déglu ba dégg ci télé bi. laaj am solo. fi ngay wax pour preuve ci li wax mooy bien évidemment mosu leen a gis réew mu sérieux moo xam ne fonk na liggéeyam te amul nu muy toppee ay statistiques am loolu dafa yéenewul sax. maanaam ci misaal moom nee na bu fi soble amee pomme am carotte am dañuy dakkal importation yi waaye ci kon ban base lañ koy defee compte tenu du stratégique d'un pays et de son approvisionnement maanaam pour mu am ay légumes. bu fekkee amuloo visibilité ci li ngay ñaxle kon est-ce que mën nga wax ne juróom ñetti weer yi di ñëw tëj naa frontière yi kenn du indi. donc il il répond à la question. moom nag seen ay statistiques fiable na. d'accord docteur déglu nañ la da am lu ngeen koy laaj. bien boo ko boolee plus weeru tabaski ak màggal. Mhm. ñu ngi di am à près trente mille tonnes dina la jox li ñuy consommé ci soble. Mm. léegi kon statistique yi bu amuloon fiabilité yow doo mën a pour def jeune. merci kooku mooy indicateur bi. merci nee na nee na seen statistique fiable na Pierre c'est bon Pierre c'est bon fiable na donc il